bisimilah sëriñ bi neen alhamdulilahi rabil alamin fa tabarak fa tabarakallah mu ne jataay bi am na solo lool dégg na kàddu yi sëriñ Saliou Fall mu ne xam nañ fi kàddu yi toll ak ñi ànd ak moom mu ne noonu rekk la waxtu wu ne nañu gën a feddali suñuy laxasaay ndox loolu mooy suñu warteef képp koo xam ne sëriñ bi mi ngi ci yow mu ne war a tootal dara lu dul moom rek mu ne loolu xam na ne moo nekk ci yéen ndox moom ngeen bëgg moom ngeen di wut nu kon loolu rek moo moo mën a nekk ci yéen mu ne nekk ci gannaaw sëriñ bi wan gannaaw li mu wan gannaaw jiblu ki mu jiblu mu ne loolu jenn tawféex mënu koo ëpp nañu gën a xam li ñu am sëriñ bi boolewul ak dara ak boromam ak yonent bi boolewul ak dara boromam lu dul yonent bi bi nga xam ne moo ko jox boppam moo ko joxoñ mu ne kon alhamdulilahi rabbil alamin ñun wéetal yàlla rekk mooy suñu ndono mu ne la ca dolli ko mooy liggéey sëñ Tuubaa te sax ca dàkk nag liggéey bi dafa yaatu lool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 yombul waaye tawféex mooy yomba lépp te ñun am nañ tawféex sëriñ bi lu ñu war a ñaan rek di di dolli ko waxtu wu ne suñ borom mii dafa ko dindi di ñu dolli waxtu wu ne tawféex sëriñ bi ci ñun ñu xamee ko noonu rek jërë ngeen jëf sant nañ leen gërëm nañ leen suñu xool sedd na mu ne soññ ngeen ñu dañ koo fas yéenee ànd ak rek. waxtu wu ne noo gu ne ñoo ngi ciy yeesal ak jaayante ñun suñ jaayante ak sëriñ bi ak jaayante ak sëriñ bi suñu jaayante ak sëriñ bi fas yéene gën a feddali suñu laxasaay gën koo ànd ak yéen rek te nekk ci loolu yoon waa ngoog jërë ngeen jëf di leen sant bu baax mu ne na ngeen ko nuyul sëriñ Saliou Touré bu baax mu xam ne fàttewu ko te du ko mos a fàtte fàtte mukk ca daara ja mu ne ñoom ñaar la suñu borom boole woon ba léegi la nekkoon ci ñoom tey jii la fi gën a nekk kon na ngeen ko ko siyaareel ku baax nee ko fàttewu ko te du ko mës a fàtte mukk jërë ngeen jëf kon sëriñ bi sant na leen ci seen taxawaay ak seen nité ak seen pas-pas bu ci jëmmi sëñ Touba kon mi ngi leen di ñaanal suñu borom dimbali ñu ba ngeen daje tawfeex sëñ Touba seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yowén seen lépp gën di barkeel kon na ñëpp tàllal seen loxo te waaye bëgg na ko ci nee leen amin ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp ñi ci biir kër gépp fu waay toll rek la bëgg na ko fa ci sa xol te wax amin buñ noppee na ñëpp toog ba xéelu ba noppi soog a dem loolu mooy ndigal li amin Mbàkke amin amin Mbàkke amin kuréel gi di soxla war naa ko lool bu sëriñ bi daanalee amin ñu yëkkati rek amin nañ ko waajal amiin amiin